dikkati na tamit gi segg parrainage bi daal dinay fatt wala bés bi le jour may xamal ne fi mu ne day benn loi moo am ci réew mi mooy loi tama boo xam ne mani la day segg ñiy jaar ci parrainage bi waaye kenn jaarul vox populi naan ko déet ñaar kay jàll na ci ñaar fukk yoo xam ne ni ki démb ñoom lañ doon sëgg di yër seeni dossier tribune yéen kaay ko dara processus parrainage bi mani la wax ji du dañ am na lees waxul lu ca amul transparence ci boppam ga ñu ne woon amu ca ca ay junni yoo xam ne kenn gisu bi ci biir constitutionnel laaj ba samp moom moo di ma ni la ñaata fichier moo am ndax na gars yi ci boppam seeni pièce buñ ca bindee mënees na wote ñu dem ba ca conseil ba ñu xam le ni duñu ay électeur laaj wa samp moom moo di ñaata fichier moom am ci réew mi ban fichier ci boppam la conseil constitutionnel daal di yore yéeni kaay bi dee média bi naan en tout cas njiital gëm sa bopp ma ne woon politicien attention ci bileb boo bokkun ma la bileb fichier ku yabul tiit ci gileeg fichier waaye tam seegug parrainage bi daanaka am na dëgg ci gars yi ndax tey jii ku ñëw conseil ne faw yi ñen ñu dàq ci boppam bari na wala turbine yéen kaay naan man en tout cas direction générale des élections fi mu ne génn ab sas moom moo di génn nag leeral sénégalais yi te bañ leen uppaajam ne leen fichier bi nga xam ne moom lañu yor nii bu baax la wala baaxut askanu sénégal nga xam ne moom na boppam kenn tënkutu leen nekkunu ci mbuumuk njaam askan woowee lañu ne direction générale des élections bi nga xam ne askan wee ko dénk nañu génn waay waay leeral sénégalais yi dalal seenub xel ci gile nga xam ne daanaka xel ñaaw na ca ba nuppi l'enquête quotidien naan en tout cas fichier ba moom mi ngi mel ni pièce ba nuy jàppee jinax ku ñëw mu naj ay yaa yëgul yéene kaay bi naan man ni ki démb ñamu jàpp ci piège ba bari na le témoin yéene kaay naan kon fi mu nekk fi mbiri toll daanaka lu toll ci ñeen fukk ci ay candidat moom fichier bi naj na leen ne leen du ngeen dem élection vox populi naan man daanaka massacre ni ki démb moom moo am te conseil constitutionnel gannaaw professeur Daouda Ndiaye ak Aliou Mamadou Dia bu pur te sax Aliou Mamadou Dia dañ ne ko demal nga mutti li ñëwaat ñëpp ña jaar ni ki démb dañ leen téye l'enquête naan kon moo taxit benn ci candidat kese moom la jàllam wóor ni ki démb moom moo di daaw Daouda Ndiaye fukk ak benn ci ay candidat ma ni la seen dossier moom jotuñoo sax yoru parrainage ba ndax dañoo versé wul caution le témoin naan kon Aliou Sarr Cheikh Bamba Dièye Cheikh Bara Doli Mbacké ak Birima Mangara ni ki démb piège bi da leen jàpp seenub candidature jàllul turbine yéen kaay naan kon juge Amadou Demit jàllul Idrissa Seck mi moom mi ngi xaar mu tiligi l'observateur naan kon déet Idrissa Seck mi nga xam ne officiel yi moo toog ca ñaareelu place ba tey jii ñu ne ko yow Idi daanaka juróom-ñeenti junni doublon am nga ko te bii nekk sànni tàccoom moom Idi élection présidentielle bii bu ko mujjee mën na dem toog bàyyi élection ci réew mi mi ngi ci danger réew mi quotidien naan kon Idi kat dafa matalul Sud Quotidien naan kon moo taxit recalé nañ ko moom Idrissa Seck naan kon demal muttuli ji te ñëw Le Quotidien Le Quotidien naan kon fi mu ne mi ngi ci danger de ndax Idrissa Seck lu toll ci juróom-ñetti juróom benn téeméer fukk ak ñett ci ay doublon la am war ko daar daar man leen dara de gars yi ñañu bëgg ñu jàll danañ jàll ñañ bëggul ñu jàll duñu jàll fi mu ne nag ña bien bon di tas yaakaaru ñoo xam ne daanaka daal di nañuy bàyyi seen lépp daal di dugg ci biir réew mi daal di dagat baatu askan wi ba mar day taali tey jii ñoom la ñuy jël seen xob di sànni sànni bu ñaaw wala vox populi naan kon en tout cas tey Aly Ngouille Ndiaye Mohamed bun Abdallah Dionne Karim Meïssa Wade Malick Gakou Habib Sy Souleymane Ndéné Ndiaye Mamadou Diop Decroix ak Babacar Diop daañu xam ndax wërngal bi njëkk bi tax ñu bokk ci élection présidentielle bi daañu ko jàll wàllam déet le mandat yéeni kaay naan man laataa ñu yor dossier Ousmane Sonko manees na leen wax ñaawteef yi nga xam ne am na ci dossier ba mu tàbbi kaso Sonko yéeni kaay bi naan man en tout weex na waaye dereta kolal bari na ci kàddu gii sànk na Ousmane Sonko ay lëkkaloo yoo xam ne nii la façade rek bëggoon xeeñu parfum te amoom njëgam daal di jege ji ka ko xeeñ daal di faagaagal ci wàllu politique nag koo xam ne daanaka jàppe woo koon ab adversaire ab naataango nga ko jàppe woon caxat-caxatee ko ci anam wu ñaaw te lépp nag siiñ te gëmoo ko moo ko waral le naan man boobu sàll ngaari lu toll ci téeméeri junniy logement ma ngi koy waajalal diaspora bi nga xam ni nekk nañ fii ci dénduk Afrique laas yéene kaay naan kon waxtu woowu moom sàll ba tey ma ngay gate maire yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi xam nga radel ab kuréel la goo xam ne ay maire nekk fii ci Sénégal la daal di lëkkale maire bu Malicounda Maguette Sène daal di koy taxawal ñu amoon ay doléance yoo xam ne jébal nañ ko président Macky Sall bokkoon na ci la ñuy fay maire yi yàlla sàkk ñu daal di koy yokk jëlee ko ci trois cent mille francs yóbbu ci huit cent mille yóbbu ca ñaar fukk chef lieu département yi mën a am million yu wil a am junni conseillers yi mën a am ay ndàmpaay ba ci ñaar fukk ci ay junni fi ne nag yéen kaay bi naan man mënees naa ñi de ndax président Macky Sall daal dina leen di nangul seen doléance yooyee la radel ma taxawoon 2023 ak doon ñaxtu laas naan man président Macky Sall fas leen ko yéene defal turbine yéene kaay naan kon yemul ca salaire waaye statut élu yi ci boppam moom président Macky artu woon na ci ànd ak ay élu yoo xam ne nekk nañ fii ci waxtu woowu vox populi ma ngi may xamal ne fédération bu syndicat bi nga xam ne ñooy yëngu ci wérgu yaram fas nañu yéen a banque seen loxo ci diirub ñaari fan sit juste ci wàllu yoon it diirub ñetti fan ñu fas ko yéen a banque seen yoxo turbine naan kon booba Cheikh Mamour Insa jeexal na at wi ci gàmmugam kuraan amal at yàlla sàkk jooyanti ndaw yi waxal leen ci wàllu diine waaye tam xamal leen seenug yoon moom Cheikh Baye Mamour Insa booba turbine sport ma ngi may xamal ci wàllu football Aliou Cissé joueur yam woo ba tey matagul yenn kaay bi di ma xamal ne Xaadim Gadiaga nee na Modou day pare na ngir jël ñetti avance bu tafaatin bu rëg-rëg ak bu Sa Thiès l'observateur naan maan faatu gu ñaaw moo am ci diwaanu Pikine soxna si dañ ko fekk mu neen ñu xoj ko mu daal di faatu nañu fekkee ka ko faat di ab dëkkandoom ci kër ga daal di tey xel njort yi daal di dem ne waa ji ci boppam da ko bëggoon sàkku ba nii kenn amagu ci génn xibaar ndax waa ci kanamu enquêteurs yi jooy ak jàpp bopp la fa nekkee ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog